ku nekk xam na ne cheikhul xadim cheikh ahmadou bamba li mu gënoon a mooy touba moo tax bi ko suñu borom di nattu ci touba rek la ko nattu fi ni ñuy wax yëpp nattu suñ touba bépp touba rek la ba mu demee gabang wàññiwu ko dara mais ba mu ñibbisee nag lañ ko ne fii doo fi ne xam nga looloo gën a metti fii ne suñ touba ku ko ne woon kaay dem gabang nekk touba buy dem gabang da koy def du moom waaye ba mu jógee gabang ci yéen keroog ba muy dem njaareem bi mu jubee kàdd balloo ji gi lañ ko ne boo fa jaaree du baax te tubaab bi néewu ko boo fa jaaree du baax chef de canton bi néew ko boo fi jaaree du baax suñu borom moom ko séqaloon moo ko ne fee waroo dem lu mettee noonu mbokk mu dem njaareem nefa fukki at ak juróom léppam Touba la boo jógee Touba mu teral la buy wax ci Touba ñëpp xam ne lii la gën a bëgg kon nattub Serigne Touba mooy Touba nattub géej gi par rapport ak Touba mutu ci un virgule cinq pour cent il faut ñuy indi mbir yi ci ni mu doonee loolu la tuddee borom xam nga tuddee ilmul qiyaas da jël benn affaire nga natt ko ci mbir xool na mu mel ku ne xam na ne sëñ Saliou ni mu bëggee sëriñ Touba ak sëñ Touba ni mu bëggee Touba ñaari bëgg-bëgg yooyu dañoo croisé moo tax sëñ saaliw lu muy def ci Touba lu nekk day jël armeem arme bi mu yor di geeral sëriñ bi di ko war ne ko nga gënoon a bëgg te yàlla nattu la fa bal ma defal la ci lu fi kenn mënut a def noonu boo ko déggee noonu rek léegi li ci des lépp day daal di yomb waral na bu kenn defe na it daa nekk xalifa am xaalis defar Touba kooku xata la sëñ Saliou bi mu participé ci Touba li participé ci lu sëñ Touba am jumaay Touba jii defe naa ñebbe ju mbayoon mbaakol la la la njëkk a jaay jox ko <laughs> joxe ko ci ngir bëgg rek jumaa ji kawe sunub liggéey nun ñi ñëpp suñ masaana liggéey ba noppi ka ko daan yóbbu da ko naan ka fi nekkal sëriñ bi mhm. jamono suñu abdulaat man laa fi fekkee mhm. bu ko masaan a jox ko koy yóbbu cib saako la koy takk ay milliards nga takk ko cib saako sàmba ñukk mhm. sàmba ñukk mooy euh, si saako siyaam boobu am xóolu verte bi ci digg bi ci la koy takk ba mu dëgg ne ko demal ma ko suñu abdu te bu fa bu fa nekk lam ko koy joxe mooy nee na nañ ko def ci liggéeyub sëriñ Touba bi daana wax naa yéen li ngeen may jox dama koy def ci liggéeyub sëriñ Touba bi li ma sama borom di wërsëgal ma leen ciy dundal bu kenn defee ne da nga doon bay di lekk déedéet da ngay jox sëñ Saliou bay mi mu jox ko ki fi nekkal sëñ Touba mu def ko ci liggéeyu sëriñ Touba bi mm-hmm. liggéey sëñ Touba nag benn génn ci dëkk bi mm-hmm. sëñ Touba amuloon projet France mm-hmm. amu ko Dakar amu ko sax njaareem gii kenn benn doom sëñ Touba bu fi nekk bu mas a def benn cotisation buñ def buñ def mu génn dëkk bi amul ak mbayam ni mu daan yaatoo ba mu nekkagul xalifa général des Mourides ci ñi gënoon a mën a bay ci la bokk ndax 88 89 la jot xel ko kon sorewut ak fi mu nekk xalifa waaye lu trente trente et trente trois la sañ ci got ko tàmbalee bay trente trois ba quatre vingt neuf quatre vingt dix te la nga daan bay mosoo caa lekk dara nga tàmbalewaat nekkub xalifa li ñu lay jox moomoo ko suñ suñ soo sinal daan wax ne li ñu koy jox moomu ko li ñu koy jox ci turu sëñ tubaa moog waa kër sëñ tubaa ñoo koy bokk da ko daan séddale sax sana wi yan par at daal ne lii mooy saa wàll ñu ci mooy wàll ñu ci des liñ koy jox nag di ko di ko ko sujjóotale ko di ko ko siyaaree mu koy dugal ci poosam bi loolu lañ daan dundale nun ñëpp kon kooku bu Touba doon projet ma ne ni mooy mu mawwil bi mooy le grand financier maanaam ki ki ëpp lu mu joxe moom lañ ko mën a tuddee ndax lim daan bay bari na lool te lépp daf ko daan def ci dëkk bi moo tax bu kenn defe ne suñu daan daan nekk xalifa rek tàmbali lef ci dëkk bi loolu njuum te lu rëy a rëy ci ñëpp la benn bi ci des tuubaa jaral ko lu nekk ndax li fi sëriñ bi nekk waaw ginnaaw moom sëriñ bi léppam heureusement sëriñ bi léppam mi ngi ci dëkk bi moo tax mu defoon Touba muy léppam bi mu tàmbalee lu lotissé defe naa ko xaman fi Touba yeman bi taxdiit ak lim ci dolli ak système bi mu ko ci dollee da naan kii ndax daa demoon Canada mbaa mu demoon Amérique jàngi ni ñuy dundale ab dëkk ndax lan taamir huwa anshaakum min al ardi wastaamarakum fiha yàlla moo leen sos ci suuf pour ngeen développé ko akay kan mooy dem ci ay tool di ko développé bàyyi dëkk ba muy fanaan ak yendu hada min al xabaawa xabaawa yaakaar loolu gàtt xel la wala xamaaqa sax muy ñàkk xel waraloon na bi muy lotissé engagement bi mu jëloon ci lotissement bi ci ay ay ay yu rëy di ci joxe lu dul jeex bi mu noppee ni mu sancaloo nit ñi moo gën a yéeme nit boo ko joxee terrain niil ne ko yaa ko moom ak nit ñi ni ñu bëggee ak moomeel ñeenti piquet lañ fay def peinture ko def ci seen numéro téléphone dem seen yoon ñibbi loolu du ab dëkk ndax dëkk danaan wax naan ko indi say bagage na ngeen ko jox ok andi ay bagage sa moom kuy dëkk la te it bagage yi daf ko daan ràññat le waxul ko am di sab saag ak euh, sa danaan la ko indi ab fu ñuy fanaan ak cin lu ñuy toggee ak soxna su koy togg xoolal ma boobu technique kon suñu saaliw daa mel ni moom fi mu mu toll moo rawagoon mbooleem ku amum xelum doomu aadama suñu saaliw la gën a moos boo indee sa soxna andi sa doom indi sa say cin sart la woon ci ci ñu doon joxe kër yi ak lal bi ngay tëdd waaye si bi kooku kookuy dëkk la moo waral moom fi mu tàmbalee woon bi muy joxee lu ñu ci violé wul rek dafa nekkoon en norme loolu lu rëy rëy la ci dundal Touba ci ak xilaafaam lañ gisee ñu baree bari tuxu tuxu gu simple nit ki boo ko ne yaa moom fii mu dem wàcc ko fa dem di bay du ko defar bu ëllëgee mu seer mu jaay ko waxaale wuñ ko kon nag lim njëkk a defal Touba mooy wutul ko ñu ko dëkkee ginnaaw bu ko lotissé joxe ko ba des prochain boobu ngeen déggoon muy tëli yi dafa ne nañ nañ njëkke tëli yi ci ci àllaar si ba waa àllaar si di mën a ñëw ci dëkk bi mu ne àllaar mooy banlieue ci olof léeg nga wax baat bu xaw a luxa mu ne waa àllaar si nañ wutal ay tëli bañ mën a bokk si ci dëkk bi su ko defee la des ci xaalis ñu ko wërale nag ci biir dëkk bi xoolal boobu ci àll bi feeg associé woo ko dëkk bi mu am mu ne woon nag nañ tàmbalee tëli yi ci àllaar si àll bi mën a dugg si ci dëkk bi su ko defee la des ci tëli yi nag ñu feesale ko dëkk bi kooku doone aalimun almaani doone aalimun américain yu doone aalimun kanadi da nga naan kii daal rabbaani yi la ku yàlla andi la loolu bokkoon na ci lim daan def daana waxit ne ndox mi nit lim ta ñàkk ci bu xëyee mooy am ndox moo waroon gis nga fu mu lotissé fu ne installation cent vingt yi 63 bi jóge ca 32 bi sotti ci dugg ci biir kër gi loolu loolu bokk na ci lii dundal ab dëkk xattaa ba ci gis nga tubaab bi sax mm-hmm. li ñu ñàkk-ñàkk euh, euh, euh, solo li ñu njëkk def mooy ay tali akum ndox ak i ak ak i piquet soo ko ba kër gi day daal di am valeur soo koy jënd yaa ko moom nga defar ko soo ko moomee mu xiirtal la ci nga mën koo defar yëpp technique boobu suñu saali am na ko ba noppi tamam bu toogee naan jëmm ji nag wax dëgg yàlla nan la mën a xalaati lii bu nekkoon sax koo xam ne dafa niroog loola waaw loolu kii maa la koo xam ne bu toogee yow buñ la buñ la ko desee dessiné woon nga seet lim lim yor lépp ci luy niroog ay valeur bu dem mukk vingt cinq mille te saa yu xelam mi xellee xeli ay milliards loolu moo la war a jaaxal sëñ bi ndax loolu moo wax noonu tey ku ko ku doon wane ki ko def la ca doon tane mooy ñu wan la koo xam ne day nekk ci siis boo xam ne dañ koo xoob yore yëre yu garaaw ñi ci wetam dañu ay intellectuels yoo xam ne dañuy dem ak dikk nga gis ko mu yore ay ay ordinateur sax lu ban bon di bind ak maas waaye saa yu fastee loxoom yi jëf loo xelam mi jëf-jëfi état mm-hmm. loolu moo gën a yéemi ci sëriñ bi mm-hmm. loolu nag mooy xormay zaahir ji mhm. ndax il faut nga wax ne mhm. pour mu nekk kaamil mhm. am sumoliya li koy war ci dëkk bi da koo def en tànk que Serigne Saliou bim noppee nag yi dëkk bi benn borom xam-xam daf ne woon beneen moroomam sa tànk yi ngay ding-dingee ci kaw suuf si sa ndaal bopp li nar a nekk ëllëg bay boo sa tànk yooyu nga koy dox ndànk wax wax ju am solo fiñ lay bëgg a suul bu ëllëgee sa ndaal bopp fay tëdd maanaam nit ki bu ñu ko suulee moom ko xam ne na suufa koy kawe suuf soosu ñu lay bëgg a suul kon war nga ko jox orma waaye war faa nekk di dingi ndigee ka cëpp-cëppee ka cëtang que bu ëllëgee si biir foofu ngay cëpp-cëppee ka cëtang cëtangee ka defi réewande ne ko doom mu ne mu ne ko sa tànk yi ngay ding dingee ak cëpp-cëppee ka cëtang cëtangi ci suuf soo xam ne bu ëllëgee si sa ndaal bopp lay nekk ci suufam mu ne mu ne ko lool du bi am loolu la ko waxoon kooku du woon ab waaye wax na waxi nit mm-hmm. moo waraloon Cheikh Saliou Mbacké jox dëkk bi xorma mm-hmm. daana wax naan sax sa law yi ngeen fii def day tamit yu neexul yàlla mm-hmm. ci man lay feeñaat xool ma lii parce que da koy yenu moom dafa liggéey Sëñ Tuubaa ci faayir liggéey liggéey ko ci baatin bu bon bon yi baree ba bari day wàcc ci aw yaram yaramam pour mu tolloo rekko loolu ma ne su ko wax ñëpp waaye lu wér la daana wax naan mooy yi ñuy mooy ci biir dëkk bi dama koy yëg sama yaram bi kon moom ndeke yaram bi dafa communiquer ak dëkk bi benn communication da am benn da am benn rabita dafa am benn alaqa relation boo xam ne te moom mi ngi fonctionner dëkk bi te waa dëkk bi yëguñu ko loolu bokk na ci lim daan wattandiku ormay dëkk bi yeggoon na ci ñi daan dugg ci otoom su oto bi déparé saa yi tolloog jumaa ji nii lay def mbaxana mi man teg naa ci sama bët te yaakaar naa ne bari ci ñi daan dugg ci otoom teg nañ ci bëtam ak dàll yi mhm. dana te ci biir oto bi la ne dana sumi dàll yi sumi mbaxana mi ba ba muy foofu daana waxit ne yéen ñii jëm kër sañ ëddu mbaa ngeen di marché occas di leen jaar ci sowu jumaa ji te wattandi ko penku bi mbokk yi yaakaar naa li dong doy na ci ne sëñ Saliou ku bëgg Touba la ku ko defar la waaye doy na sëkk ci ne ku fonk Touba la ku ko gëm la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëñ Makhtar tabaarakallah tabaarakallah waxtaan wi am na solo lool liñ ci doon seenu lépp ba taamu la tabaarakallah gis nañ ko ci tabaarakallah tabaarakallah